Euh, bàyyiwuñ ci won xel mais jamono jiñ toll ak li nga xamanteni ni bi moy science bi fi mu fi mu ak euh, li ñuy wax euh, numérique beeg système d'information manam affaire xale yu bees yi toll na fo xamné ah am nañu lu ñu a dugal biir njàngale mi motax suñu jàngalee inshallah allah dinañ ko soppi niñ doon jàngalee ni ñu doon évaluer jot nañu sotti ko ñu soppi ko mais aussi li nga xamantene bi mom la nongay di jangé même sen keur sax war nañ leen jàppale ñu soppi ko pour euh, université mëna jëm kanam. wa opportunité yi moom vraiment bari na pour entreprise yi mooy entreprise euh ñu gëna performant ñu gëna parce que tay entreprise yi au niveau mondial euh, compétition bi dafa dafa reuy hein ah, marché yi dañoo ubbeeku donc ku nek mëna ñëw euh liggéey fi Sénégal euh donc. Euh, le défi moi, compétitivité c'est de faire eh, intelligence artificielle mon na tax entreprise yi gën compétitif gën innover parce que loolu mooy futur bi mooy ñi nga xam ne diriger monde bi suba mooy ñi nga xam ne ñooy gën innover et defe naa euh, intelligence artificielle ne mun a aider à l'innovation une entreprise Sénégal euh, nous intelligence artificielle si si si politique bi euh, créé une euh, stratégie mais stratégie document nous quoi stratégie pour intelligence artificielle stratégie pour quoi acteurs euh, c'est un premier pas waaye euh, dañu war a dem quoi mi fu gën sori et war nañu euh, mettre un cadre bo xamanteni dina mëna tax ñu mëna opérationnaliser ñaari stratégie yoyu si ay jëf yu leer nañ si si mbirum économie bi économie IA bi si mbirum jàngale bi si mbirum euh, euh, euh, recherche bi ak financement am donc yëf yooyu yëpp ñu ngi laaj état bi daal su mënee teg en place benn structure boo xamante ni dafay dafay concentré wu si opérationnaliser quoi mais stratégie yooyu dina mën a tax Sénégal occuper place bu am importance si Afrique ak si monde bi